maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp jiital nuyoo bi nag suñu sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy le président du mooy li ñu jëfandiku woon pour Thiès li ñu jëfandiku woon pour bañ ko fa cotisé ñoom laa koy jëfandiku. di nuyu asalaamu aleykum wa rahmatullah dafa mel ni yàlla suur na yàlla. yàlla suur na yàlla. mu leeral cër yi ñu ngi gis kàddu yi ñu ngi ko tënk ci nekk naa yoon boo ko ko dama lay nuyu bu ma gën a yàlla yàlla dugal kanam yàlla dugal taxawaay yàlla si ko mën a jàppale بكل خير ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لي صاحب شكرا لكم nga xam ne moom la ñu sëriñ bi dooleel ci conférence bi dool mais Je suis un homme de élu, un homme de valeur. Nous sommes tous, nous sommes tous les dinaa ci jëli fii muy jëlee ko sa wërsëg fonk sa waajur moo tax ñu wane ñu gàtt ko baax a ñun ñu le président de la conférence leader Yewwi Askan Wi le doyen Habib Sy ñun le président Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne moom moo ko def léegi ñun le président El Hadj Malick Gakou nekk maire comme maire de la ville de Guédiawaye ak ñun. ñun suñu fee suñu xarit yi ma yor Bouto waa Lyon. ñun tamit suñu yaay suñu xarit di madame la maire Aïda Mbodj ñu koy indi l'ennemi, le président Ousmane Sonko, le président de Pastef. am ci bokk ci toog maa ngi leen di yàlla mu tudd jàppale bu baax te ñëpp xam nga ci moom ñu ngi yàlla sax ci biir de la coalition yooyu assemblée à l'époque, le président Blanc Diop, président du groupe parlementaire. Voilà une mention exceptionnelle à notre collègue, la commission députée, l'un de nos beaucoup plus du 69. ak waxu nag lool ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal ñu doon xam ne festival yi nii moo ko tuddee ñu ñaanal li leen ma sax def ak li nga xam ne ñoo festival yi nii moo ci njëkkee te jënd parce que képp koo xam ne dañu ñëw ñu ngi ci xam festival yi ku doon loolu moo tax xamal Cheikh Ibrahim nii ba Sénégal lay nekk suñu sëriñ daal képp ku ko mën a jàppale bokk nañu ko jàppale. tey man Sata Sall man Sata Sall ak Mouhamed Ndiaye def nañ lu dul bokk sëriñ bi jàpp ko ak bokk na benn benn loolu moo tax tout le monde dafa yore ak sëriñ organisation conférence de presse te ñu ngi waaj a organiser cette première visite devant l'Assemblée nationale pour la libération de Massata Sall ak Mouhamed. C'est une décision qui a été prise devant le ministère te ñu ngi ko def pour ñu ko assurer. Jiw ci gerte wala moo tax a nekk mën na leen def assurance soirée bii bii bii seen yëngu pour seen dëkk la président bi da ngay fexe dañoo fekk ba guddi ñu ne sëriñ bi ne lan nu ngeen def lii ci dox ak lii ak lii ak lii kii da ngay def lii en commençant par dana jox Ababacar Thiam ma ko ñu ñu ngi ak Aliou Faye ma ay ñu di nuyu ko sama mbokku ci daara bi di nuyu seen ay yéene jóoy nit ku baax ñu ne seen yéen ñu ne lii ak lii ak lii lan la ñu wax te ñu teel a xam xam ne ko xamul mën nañ leen teel a wax bu ñu demee député bu ñu demee député xaaral xamante ni bu ko xamante ni man de xar la. moo tax nag li xew la ko yëg waaye su ma demee dem rek ma xam ne moom maa ngi doon loolu la ñu daal di gis góor ñaay góor ñi muy sant moo tax ba ñu dugg loolu moo di ne day jàppale ak dañu naan parce que dañu koy ne dara pour ñu bokk ci seen jàll loolu ci seen jàll juróom la ci waa parti bi ñu ne kon yéen bu ñëwee ay militants yu am valeur ay militants yoo xam ne ay militants yu nekk diine ay militants yu nekk